Wah, Delosiar General? général. Sefa Jaxaaw. waaw borom Sob. billahi borom Som. Wow. Sefa bëgg nañ la. non delloo ziar. ziar la jox la wàcc waay. delloo lu bëri bëri. ngay def final fii si Njaanjaay Fatick. Wow. ren Koroma ak John loo yëg. looy wax sant lu bëri. bëgg sama gaay sama supporter sama fan si club. di bëgg ñoom ñëpp di bëgg Babacar ki ma dalal ko waa këram. maa ngi koy bëgg lu bëri bëri bëgg sama gaay yi. dëgg la am na solo bilaay daalaay. Sefa ki ngay bëral xam nga ko. non xaw ko quoi damay dégg turam mii rek. ah lo koy indil non bëri laa koy indil ak saytaane damay dox si kawam daan ko. bi laaw laay wala fan si gërëm ne. bu ko woon kii maa ko damay dox si kawam li ma doon li ma doon def gars yi rek. noonu la demee. bi laaw li ma defal gars yi moom laa leen defal tey rek. lan ngay wax waa Général TV. waa Général TV am ma fayam. di ko ñaanal jàmm. bi laaw laay Général maa ngi la ñaanal jàmm. yàlla na sa jàmm yàgg. waaw ok merci. ziar naa leen. Ngor Sadi Ndiaye. Ngor Sadi Ndiaye. waaw dëkk Ndiaye Ndiaye. waaw di def final raw gaddu Ngor loo yëg ak looy wax say supporter. man maa ngi sama fans club yëpp. di gërëm gars yi Ndiaye Ndiaye uma seen fay. gërëm naa ñëpp ziar naa yëpp. lan def nga nekk sa biir dëkk di finalu lan la lay def ban yëgee ngay am. non damaa kontaan nag. ndax gars yi jour ma commencé ba tey ñu ngi ma taxaw. lu def lu war ci man yëpp ñu ngi koy def. mais ki ngay bëral xam nga ko. waaw maa ngi koy gis ni rek. CFA waaw. du la may dara de. non man damay ñëw. doo ko indi ñëw man lépp instant yi dama pare. atia gërëm sama fan si club yëpp. di gërëm sama grand yi. bàyyuma kenn nag. sama boy yëpp. gërëm naa ñëpp ziar yëpp. atia merci gid ah, ma den jeg yim ndabid den yaakaarama dina baax nag. xëy rek daan dek may dëkkaa ñaan da mojo rek a mojo waa simo gid ma fan si club es nag fop may gid ma dina baax bonne chance mbir waay Séema daan na ko Séema daan na ko Général TV